ne bokk na ci ay téere sëñ Touba mu ngi ci rafetlu taxawaayu garab si silkul jawahiri boo ko xoolee te tamit ci garab bu mu samp moom ci boppam te am na ñoo xam ne ñu bëri xamuñu ko waaye Touba moo garab bu ñu gën a ràññee ci àjjana mooy tuuru Touba bi ci boppam garab googu xobam du musa daanu garab googu bëpp bëpp euh, kër bu nekk ci àjjana am na am na garab googu samp nañ ko foofu ce fait que Touba tey bu taxawee ñu ne ñu ñëw jëmbatu garab yu toll nii 22 mille ñaari fukki junni garab ci 7 kilomètres ak ci biir kër yi arbre arbre ombragé ci ci autoroute ba ak ak arbre fruitier ci biir wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu lu ñu def doyut saa yoo ñu nu woowee dinañu teew ngeen jottali ko sëñ bi ngeen jotliko ko communauté ba lii nag lansement kese la ndaxte dinañ fi ñëwaat fii bu fukki fan ñu lancé Ila Touba bëggoon nañu bëggoon nañu wax dëgg yàlla événement année bii ren mu doon événement bu boo xam ne moom mooy dernier événement boo xam ne moom mooy dernier événement bu nga xam ne da ngay jógee Dakar ñëw ba Touba te doo gis ay ay ceinture verte du la accompagner bëggoon nañ mu doon lool parce que tey ren dinañ commencé jëmbat laa Touba ak waa Eaux et ak ak euh, Touba ci kanam ñu ngi ciy waxtaan te président dox na ci ndigalam donc loolu xam naa nekk dans deux semaines maximum trois semaines hmm. dinañ commencé di ko def bu ñu ko defee nag bopp jullit lañ ko defal bopp murit lañ ko defal señ bi lañ ko defal réew mi lañ ko defal di rafetlu bu baax a baax lii di wax rek ne lu lu ñu toll defe naa ne musul am te dootul am mbir nag bu xewee te musul am te dootu am wala kenn defagu ko su nekk su amee war nañ cee mën a war nañ ko mën a def référence ci Sénégal pour développement bi comme ni ko directeur waxee léegi. di sante bu baax a baax suñ mbokk taalibe bi nga xam ne moo indi garab yi jox ko sëriñ bi muy Ablaye Sow kenn mënu ko ñàkk sant ndax def na lu acte bu am solo waaye mu fekk fi nag jàmbaar yu am solo Eaux et ñëw indi garab yu am solo waaye indi ay équipement yoo xam ne nii dana sàmm bu ñu ko jëmbatee dana ñu permettre ñu man koo sàmm muy piti matériel pelle ak brouette waaye ak grillage waaye ak ay ay ay bassin yoo xam ne réservoir yoo xam ne nii buñ ko ci defee man koo installé goutte à dana ko mën a sàmm te du doon jamono bu nekk nit moo fiy taxaw loolu nag di nuyu bu baax a baax Serigne Abibou di santati rek ñun ñi nga xam ne moo ñu jiite su ma ne ñun mooy Touba ci kanam parce que Abdou Lahad membre la ci Touba ci kanam avant mairie pendant mairie après mairie donc loolu faw ñu sant ko ndax nit bëgg a def baax na yi am yéene baax na waaye am jawriñ junde ci sa kanam ba fo di la orienté ba boo defee def gi am njariñ lu am solo la loolu lu mooy li tubaab di tënke guide religieux kon Serigne Abibou yal na yàlla guddal saw fan te wéral sa yéen yaa ngi mbooloo mi nga àndal lépp di liggéey waaye aussi di sant Serigne Mountakha bu baax a baax a baax xalifa général des ci xam gi mu xam ak man gi mu man ak bu orienté rek nit ñi ne lii fu mu ko jëlee muy tànn gi mu tànn Serigne Abdou Karim mi nga xam ne jàmbaari l'islam la d'abord di jàmbaar réew mi waa di jàmbaar ci yoonu murit boo xam ne mbooleem jawrinam yi nga xam ne fare nañ ko kaw ñëpp bàyyi nañ ko xel ndax jëf nag dafa doonul ay caaxaan te sëñ Abdou Karim képp ku xool ni def ni muy def ci dëkk bi xool ni muy doxee ci dëkk bi man mi nga xam ne day man la ñu nat man la suñu borom nattoo ñu jiital ma ci kanam conseil municipal bi ma xam ni muy doxee waa këram yi sax ay exemple lañ ci doxee lu dëkk bi waa këram yi ay exemple lañ ci doxe ni parce que da leen da leen a yar teg leen ci aw yoon di leen digal liy defar di leen tere liy yàq te di leen ñaax ci ñu am pëstéef ci Serigne Touba loolu lañu ñu mën a ma wama sahid naa nag ilaa bi ma xalim na la alquranul karim wax kon sëriñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la ndokkeel di la ñaanal di xam ne ñu ngi ci sa gannaaw ci ndigal liñ jot ci sa kilifa yi mooy nekk ci sa gannaaw loo digle ñu def ko loo wàq ñu suul ko loolu lañu santaane ñi di sant bu baax a baax Touba ci kanam di sant Serigne Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne mooy président bi ak mboolem ñi ma ko àndal maanaam ñi liggéey bi. di leen xamal ne commune bi nag bi ñu indee garab yi jox ko Touba ci kanam ñu war koo liggéey Serigne Abdou Karim war a def lépp ci mbooloo mi ak ci teraanga yi lépp loo xam ne moo koy protéger ci barrière commune bi jël na ko en charge ànd ko ak Touba ca kanam de ko di ko di financer ko ngir garab yi mën a ñoŋ. ak ànd ak ñoom ci saytu bi ba mu mel ni mu war a mel. yëkkati kàddu yi cant jëmee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo joxe ndigal ci liggéey bi teg ko ci loxoom Serigne Abdoul Karim ñoo ngi koy siyaare bu baax Mbacke Balaye Sène ndax bi liggéey bi duggee ci loxoom la ko daal di jël ci anam gam ko war a jëlee ci matale ci lépp ci la daal jële lépp lu ciy xéewal mu war warlu ko ca bis bi ci la daal di jëlee indi fi lu tolloo fukki junniy garab. yabal fi mbooloo mu bari ñu war koo taxawee na mu ko baaxoo taxawee kon sëñ Abdou sëñ Abibou nee na mi ngi sant sëñ Abdoul Karim bu baax baax ci taxawaayam bii non nii lay sante mboolem Baye Fall yi nga xam ne ñu ngi fi ci njiital sëñ fal Fall ak magam ju tedd ji nga xam ne mooy mooy mbokkam yi nga xam ne ñëpp daje nañ fi ak sëriñ Abdou Latif mi fi teewal Cheikh Mouhamadul Moutakha ñi ngi sant ñi ngi ñi ngi sant bu baax DG sant bu baax monsieur le maire di wax ne Touba ca kanam moom yéeneem mooy ànd ak kilifa yii fas yéene fexe ba dëkk bi doon dëkk bu naat ba lépp loo xam ne man nañ koo jëlee ci naataange ci dëkk Touba nekk ca kanam jërë ngeen jëf. Cheikh Mouhamadoul Mountakha xam gi mu mi ni mu yitteele ak ni mu ko yitteele te ba mu ko mënee moo daan ñëwal boppam teg garab jëmbat garab bu njëkk gi. ba mu xamee ni mu toll. la ma yónni ci yow ci yónnent ba rek ci nga njëkk a defee yitte ju rëy bu kawe ndax boobu guddi na lool te ba nga yégee ne sëriñ bi yónni na ma da ne naa ñëw ma ñëw fekk la foo xam ne bàyyi sëñ Muntaxa xel ak sa pastéef ak sa yitte moo tax ma fekk la foofa ndax booba guddi na te yëfee jaxasoo météo na muy taw ak lépp waaye bàyyi koo bàyyi xel sëñ Muntaxa moo tax nga woo ma sa biir néeg ba ma la jot leen ndigal li nga wane mbégte moo ci am ci sëriñ Muntaxa mu lay liggéeyloo ak mu la wax ne taxawal ma fa loolu rëy lool ci yow te loolu nga jëfe ko tey waaye yónent ba sëñ bi dafa maa waxoon ne naa wax sëñ Abibu ne ko bu ko mënoon mooy ñëwal boppam def ko nam ko daan defe mm. bi ko ñëwut mm. bi ko mënut ma wax sëñ Abibu ne ko mm. sëñ bi yónni na ma ci yow ngir nga ñëw taxawal ko sëñ Abibu lool rëy ci moom lool rafet ci moom lool mu bànneexoo ko lool loolu nga jëfewaat ko tey bàyyi lépp ak sa tàngaay bi ak say yitte ak sa xat ànd ak sa rakk sëriñ Aliou ngeen ñëw teewal bi sëriñ Mountakha fekk bi sëriñ Abibu ngeen taxawal ko bis bi kon sëriñ Mountakha mi ngi lay sant di sant bokki taalib yëpp mhm. di sant directeur BIT ndax yàgg naa taxaw ànd ak moom mbir mii ànd yàgg naa moom liggéey bi yàgg naa ànd ak moom taxaw dëkk bi ci wàllu garab te sëriñ mu taxaw wàllu garab ñor ko lool ba ca toolam ba ca mbul lu cee def BIT mooy ñëw def ko kon loolu nag bu amee bokki taalib yëpp daje fi Touba ca kanam jiitu nga bàyyi lépp ñëw taxaw ak tàngaay beeg coono bi taxaw bi sëriñ Mountakha danañ xamal sëriñ Mountakha ne ko lam bëggoon lépp defal nga ko ko dana jottali nañ ak cantu sëriñ Mountakha waaye danoon jot la sam taxawaay sëriñ Mountakha yaag sëriñ Abibu sëriñ Mountakha mi ngi sant bokki taalib yëpp di gërëm ñëpp di ñaan lépp lu ñu song ànd ko sëriñ Touba taje <clears throat> jeeg mbirum mbégum sëriñ Touba ak tawfeexi sëriñ Touba maa ngi nuyu fi teew ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di leen xamal ne di leen xamal ne ay taalibe fi ñëw yoo xam ne ay taalibe ñoo fi ñëw yoo xam ne seen seen sëriñ moo leen jox ndigal. moo leen jox ndigal. di leen liggéeyloo. di leen liggéeyloo. muy sëriñ Muntaxa Mbàkke. muy sëriñ Muntaxa Mbàkke. bi mu wooyee sëñ Abibu Mbàkke. sëriñ Muntaxa bi mu wooyee sëñ Abibu Mbàkke. sëriñ Abibu mi nga xam ne. sëriñ Abibu mi nga xam ne. moo jiite Touba ca kanam. moo jiite Touba ca kanam. nga xam ne lépp lu ñuy def ci lu mel nii ci Touba. nga xam ne lépp lu ñuy def ci lu mel nii ci Touba. Touba ca kanam. Touba ca kanam. moo koy def moo koy def. mu Abibu. mu sëriñ Abibu. jox ko ndigalul. jox ko ndigalul. jëmbat ay garab ñu jëmbat ay garab fii. ci dëkk bi ci dëkk bi. sëriñ Abibu ñëw waxtaan ci ak man. sëriñ ne ma nag. ne ma nag danaa ci waxtaan ak yow. danaa ci waxtaan ak yow. ndax damaa gis gis ne. taalibe nga boo xam ne. ku sawar ci liggéeyal Serigne Touba nga. moo tax ma wax la ko. nga jàpp ci liggéey bi. nga nga jàpp ci liggéey bi. ñu bokk ko liggéey. waaye tuuti lañ ci teg. waaye tuuti nag lañ ci teg. Serigne Cheikh Abdou Latif mii ñëw. wax ma ne. wax ma ne. sëriñ bi moo ko yónni. sëriñ bi nee na. mu wax ko ne ko sëriñ bi nee na. moo waroon ñëw ci. njëmbatul garab yi. moo waroon a ñëw ci njëmbatul garab yi. teg garab bu njëkk gi. teg garab bu njëkk gi. jëmbat ko jëmbat ko. waaye yebal naa la. waaye sëriñ bi wax na la ne yebal na la. ma teewal ko fi. ma teewal ko fi. defal ko loolu. defal ko loolu. tey. waaye nga jaar ci waaye nag nanga jaar ci sëñ Abibu. wax ko ko wax ko ko. door a ci Abdul Karim. jàll ci Abdul Karim. loolu sax lu xoromu da cee am. nee na loolu sax lu xoromu da cee am. ndax sëriñ Abdou Latif. ndax sëriñ Abdou booba dafa guddi guddi goo xam ne. booba dafa guddi guddi goo xam ne. jàppoon na ne. jàppoon na ne. dafa war a bàyyi ba suba. dafa war a bàyyi ba suba. suba teel suba teel. fajar fajar. mu ñëw jox ma ndigal li mu ñëw jox ma ndigal li. ba mu ko waxee sëñ Abibu. ba ko sëñ Cheikh Abdou Latif waxee sëñ Abibu. sëñ Abibu ne ko. sëriñ Abibu ne ko. demal ne ko demal rek. demal rek. boo fekkee mu fatu. boo fekkee mu fatu. nga woo ma wax ma ko. nga woo ma wax ma ko. ma ñëw fëgg ma ñëw fëgg ko man. waaw ndax sëriñ Abibu li tax mu wax loolu. ndax sëriñ Abibu Mbàkke li tax mu wax loolu. xam na ne. xam na ne. bu ma yëgee ne. bu ma yëgee ne. sëñ bi yónnee woon na fa. sëñ bi yónnee woon na fa. te yëguma ko te yëguma ko mettit bi ma ciy am moom la sëriñ Abibu xam moo waral mu ne man ma ñu danaa ñëw fëgg la boo danaa ñëw fëgg moo waral mu wax sëñ Cheikh Abdou Latif ne ko boo demee fekk mu fattu man danaa ñëw fëgg ko man loolu day sëriñ bi nee lu am solo la nee na manees na cee xam taalibeeg sëñ Abibu Mbàkke ak pas-pasam manees na cee xamee it ni ma gisee manees na cee xamee it sëñ Abibu ni ma gisee man. bu ma bu ma gisul bu ma woo ma ma nee na wax jooju mu wax ne sëñ Seex na ko boo demee fekk mu fatu ma ñëw fëgg ko man. loolu lay tekki nee na loolu lay tekki. léegi nag léegi nag. ñëw nañ. ci liggéey bi nga xam ne. ci liggéey bi nga xam ne. moom la ñu sëriñ bi sant. garab gii nga xam ne moom lañ jëmbat. garab gii nga xam ne moom lañ jëmbat. yóbbu nañ ko démb ci ngoon. yóbbu nañ ko démb ci ngoon. ci sëriñ bi ci sëriñ bi. mu ñaanal nu ci mu ñaanal nu ci. ba garab ba gi màgg. ba garab gi màgg. niñ ko bëggee niñ ko bëggee. moo ki moroomam moo ki moroomam. ñaanal nu ci itam. ñaanal nu ci itam. aajo yu faju aajo yu faju loolu lépp seex Muntaxa def na ko. loolu lépp Cheikh Muntaxa def na ko. garab nag moom. garab nag moom. daanaka waxtaan ci. daanaka waxtaan ci. jaru ko de. ndax garab adduna bépp muy ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi ñëpp xam nañ njariñul garab kooku day sëriñ bi nee na jërul sori ci wax ji garab moom njariñam ñëpp ko xamandoo ba ca garab ga ca àjjana ba ca garab ga ca àjjana ba ci garab nu nekk ba ci garab yi nu ne yëpp yëpp lenn njariñ rekk la mënees na cee xame it ne. mënees na cee xame it ne. bu baax bu baax. na ndigalul sëñ Muntaxa. na ci garab ci garab. ni mu ni ko ñëpp xamee. ni njariñam njariñam. ndigali sëñ Muntaxa yëpp. ndigali sëñ Muntaxa yëpp. noonu la amee njariñ noonu la amee moo tax. liggéey bii. liggéey bii. sëñ bi di liggéey. li sëñ bi di liggéey. lu. liggéey bii sëñ bi di liggéey lu. ci garab yi ci garab yi. liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkk bi. liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ci dëkk bi. njëmbatul garab yi ci la bokk. garab yii ci la bokk. moo moo tax. mbir mi kiimaane na tey. mbir mi kiimaane na tey. waaye baatam baatam rek tax mu kiimaane. waaye nag baatub sëriñ Mountakha rek moo tax mu kiimaane. jërë ngeen jëf léegi. waa xaaral tuuti. léegi. léegi. ñoo ngi gërëm sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ngi gërëm Serigne Fallou Fall mu Serigne Modou Aminta Fall. mi mi fi teew. teewaaleel fi Baye Fall yëpp teewaaleel fi Baye Fall yëpp. ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ne. ndigalul sëñ bi rek leen ñoom ñi nga xam ne. yokkuk Touba rek leen ñor. nee na Baye Fall yi yokkuk Touba leen ñor. moo tax moo tax. mënuñu ko ñàkk tuuti mënuñu ko osa foore. seen taxawaay seen taxawaay. ñëpp dégg nañ ko dégg nañ ko. kilifa yi ñëw nañu. kilifa yi ñëw nañu. bay di ba bay di ba. ak sëñ Omar Ba ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ne. ñoo jiite liggéeyu Eaux ñoo jot jiite liggéeyu Eaux et Forêts. ñu ñëw fi ñu ñëw fi. ci ndigalul. ci ndigalul. président sëriñ bi nee na ñu di leen ci gërëm bu baax nag. ñuy gërëm sëriñ Abdou Lahad Ka. ñuy gërëm sëriñ Abdou Ka. moom. dama xamul. damaa xamul. lees di wax ci moom. lees di wax ci moom. ndax dafa mel ni moom paaka ñaari boor la. ndax sëñ Abdou Lahad mel ni moom paaka ñaari boor la. teew na fi. ndax teew na fi. teewaaleel fi sous préfet. teewaale fi sous préfet. teewaaleel fi préfet. teewaaleel fi préfet. président. teewaaleel fi teewal fi nag. teewal fi nag. ku baax ki nuy liggéeyloo. ku baax ki nuy liggéeyloo. ak sun kilifa yi nga xam ne. ak sun kilifa yi nga xam ne. wax na ko léegi wax na ko léegi. yooyu wet. yooyu wet. mu ngi ciy liggéey. sëñ Abdou Lahad mi ngi ciy liggéey. koy gërëm yooyu ñu ngi koy gërëm ci yooyu wet. te liggéeyam nag doon ci lu rafet. te liggéeyam nag doon ci lu rafet. noo ngi gërëm itam. noo ngi gërëm itam. sëriñ Cheikh Oumy ñoom. sëriñ Cheikh Oumy ñoom. ak sëriñ euh, Gala ak sëriñ Cheikh Abdou Latif. ak mu sëriñ Fallou mi nga. mu ne tax mënatuma cee ñàkk a teew. waaye bu doon leneen. moom mii mooy dem. waaye ndigalal sëñ Muntaxa nag. lu ma tële tële. faaw ma jéem a dem nag. buñ jëmbatee. képp koo xam ne. képp koo xam ne. jëmbat nañ ay garab ci sa nañ ay garab ci kër. wala lu jege sa wala lu jege sa kër. boo xëyee. boo xëyee. na nga jël ab siwo. na nga jël ab siwo. def ca ndox ba mu fees. def ca ndox ba mu nga yor pot. nga yor pot. di tànk di nga tox tànk da ca sotti di ko suuxat. sëriñ bi nee sëriñ bi nee na. borom oto yi. borom oto yi. ak borom sareet ak borom sareet yi. nañ moytu. nañ moytu. seen pono yi. di joggi ci njëmbatal garab yi. nañ koy moytu bu baax. dégg ngeen ko. jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Mountakha bég na de. Cheikh Mouhamadoul Mountakha bég na de.